Bienvenue sur Salam Vision. fogolosee ñuwe simnaanu meegeeno salam vision ga a cafbo caf i ngaƴe o leŋ ɗana fop jam saf warna fop yaasoɓe sini bamama men en fof ɗin gariɗi umno émission ke kam sahle e mbo mbaxtano actualité ngalen umen haye a jokama jokama ene wesimma wa ene dabdaboyo simna aussi ɓe anonani ɗen ndefu de l' autre côté simna fogolo seere fof rafetura aussi darandi darala ndigilo euh, in ndef meen no actualité koy ka andoona yee ten jaxasu saax le a ref affaire a gisa i nga ne ta deme'oorna me ta refna neeke neeke saax le jaxaso trop fop a geenu fa lay maya yo in le maya euh, comme ino i njega droit lay ten xalaat in en tant que citoyen mm-hmm. i mbug u ndalim ndalnum ten meeke rek waxtaan den bo waaw ka refu sujet la mhm. mhm. euh, mhm. andoona yee koy ka fo euh, ka jeg o leŋ oxu refna citoyen gen no saate fe Sénégal xaƴiran c'est-à-dire o layanga wara lay o layange wara lay o fiyanga wara fi o fiyange wara fi ndaa koy to laya ten to fi'a ten it fata ref ka andoona yee ka fog no ka andoona yee ten a ɗak a simtu o laaya aussi ka andoona parce que ka may we andoona yee ka laya to and ke ke da laya ka mbi'a to and ke ke da mbi'a o sujet lene euh, te refna Sonko fa Adji Sarr mm-hmm. euh, yen ta jegna mm-hmm. wiin we ande oyo euh, ndaa o kiin o kiin oxey layta no coté o mm-hmm. kiin o kiin oxey laya ku waagoona lay xan lay eh. ten taxu fi'o nang bo jeg information ke andoona yee den ndef information ke andoona yee ka fiable mm. ke refna ne o ñaaƴnitin o leŋ ret waale reta à l'aveugle c'est à dire këmox këmox na reta to andiro ke njaar kaak ka ɓeka o kiin no jama sanke ndiiki te a yoɓnuwa lool a maya coow i nga'a sax violence oxey jega ten to foogaale wa e waago fad maayo donte ten fof papi sénégal ah, o o kiino kiin koy jega ma faroona mais ke moƴina te regleel no manière fa andoona yee ref ke neeke ta demoorna parce que a doya war trop yaqu yaqu fe maya wiin we nqona teen fo i lexe ɓaxwa est ce que kaaga tamit ak ke jafe-jafe kam saaxu ten ref ke me etuma rek ten refu ye o kiin o kiin ko fi'a eh. eh, ah. eh, ten ah. wala o ka war o ref ka andoona yee vraiment mhm. kaawoo parce que o ɗeetanga keɗa yaqa meke o len jegirante fe in wene mhm. in wene ndef we njegna tig mhm. wum na njala ten xa ɓiy sénégal na njala ten mhm. wum na njiriñoora produit kene andoona yee den ndefu me wen no kene ta yaqa mais produit kene ka ref oxa andoona yee no sénégal a to sen a inoranga sénégal a jik wel maaga no pini mm. ka andoona yee fopa mbaata ndaaw teen o pini mm. kaaga wiin we maaga xa ɓiy sénégalais maaga da njala maaga a doole e paax à mm. partir maaga da maaga mbañ soxla den a économiser oyo mais xaye o garanga yaq xaaga yaqana may parce que déjà xano fere euh, ne production nen waana toog toog chômage la ñuy ak on a commencé à faire. mais njaloog na mel. Mm-hmm. parce que kena njaloog na o yaqi chômage la ñuy xan i ten xano ga des jeunes plein milliers des milliers de jeunes wa andoona sa ka ref ka sans emploi kaaga fop xa jarum meen o refanga o jeune ande kat vraiment jegan roog a ci axam yiif lam xalaat taak mm-hmm. a ci axam doole koy macha allah parce que jeune la cest ku bëgguma noo waa waa bi xam waa ji léegi ak yaa xam xel mu utiliser xeles même xiic xiic xiic xiic xiic situation ne andoona ye ka ref membre waaga trouver solution o waagangee trouver solution waagango contribuer ba jabo leŋ a utiliser am wala ta wala ta xotan a layngee kat waxa sutweera xaye a xanaa jeg naa ta demoorata a demooranga naaga yoqkiro ten a jik ka fog no manipulation fo o kiin o ko war o ke mm. andoona yee ten refa ƭat ten mm. a ƭat a ci'ong mm. o ñañita naaga ba refo jeune rek nan ten rek laye a ah, a faga fokum foog ten xam yàq yaam gene soxo yàqa xam xam fi naka sudul noonu parce que gene soxo euh, mbi'a naaga mais xa jeune xaaga o ne'a one ganda bandike fo wa andoona yee vraiment an xalaat i way sax xana xana xana xana mbog teen den ɓaatu teen ko laamta o kiin xaye xa taxu o fi'a kene andino mais fi'a kene parce que ka bugi mais fi'a kene parce que kam xi mais ke tax a anda koɓale e ka ñaxtu o ɗeet o laamit annda xaye ta laykange mbirum Sonko ne ke ta wegena taxu ñaxtuwaam mais moƴo mayre fof o ɗeetanga les cinquante ou bien même les soixante dix pour cent no wiin wen na ñaxtuwaam waxa laamta den xaye an ke ke kam na da ñaxtuwa kam ñaxtuwa parce que kam waro guud me wiin we ngonitna kam ñaxtuwa parce que xa jeunesse fo kowe wala kam ñaxtuwa parce que kam waro kam ñaxtuwaa parce que kam waro euh, foog no euh, ñaxtude mais ka foog conséquence atinda to conséquence ke ta atina mo eren wala manam ke layoona a leera surtout xa jeune oxe comme ko sensibliser mm-hmm. euh, mm-hmm. a matira jeg jeg moƴo matira jeg we inoorna saate fa a ngarid we inoorna saate fa a ngarid a njaliid meeke mm-hmm. a ah? tege a ah, ɗom ɗom ɗom ɗom a ah, mbara mbaago ndam njaamu fe boo feetoo laa feetoo lañ na leen gaañukee wala nga dan xool jeex lañ na leen wékkaa mm-hmm. surtout koye wawa saate ma ngaɗitno on dakaru to ciye mene mm-hmm. moƴƴo fet i nam i mbar mbago ɓe fadi bo kiino kiina dam jamurum bo a a dosiyere payo sa mm-hmm. to in i jegke empêchement i jegke beni problème surtout xa tewanooxa xa jeune axe ndefna meke on dakaru euh, question nene leyona kam gara yita dans le contexte étant jeune c'est-à-dire oɗa fof jaaɗen hoore mm. wala o jaaɗen mm. on koro haa ko ote wala hoɗete mm. toon no diggi doole of mi o seere refo sa tefa inorum garmi nde ta min doole es mais ka jeg ka andoona ye ten ndefu kem layooguma ne banan tel e a bolo parce que oxe inoorna saate fa a gar mene a waaɗi kaata ɓisna saate fa a jeg ka andoona ye moƴo mayne fop ka jombin warere fo xa andoona yee xaye hmm. a wara ka andoona yee a retanga o feet a xaad saate faak hmm. waagkatee cooɗa ba um waagkatee cooɗa um waagkatee apporter dara famille um hmm. puisque ka ino saate fa a gar mene a jala fata jala ka andoona yee vraiment xana rewin to xana waag no cooɗ famille um parce que ta cooɗta to ko cooɗta ka war o lewona o garanga koso situation nan nene vraiment révolutionné xano bugo participer ka moom ka euh, kene yo xano xano laaya kene warama bog tene surtout esprit ne xa jeune axe toorna ndiiki o jeune re'um donc andaam ke refna ten ah. esprit naaga ten ref esprit de révolte esprit de de de vraiment euh, leytine inconscience am mais ka reta bo laye mene utiliser a ten xel den mais esprit den a utiliser a ah. comme xana nena nena mi maak kewarno ten tig ten refu oxa andoona yee vraiment principe um xaƴiran oxa andoona yee oxey xalaata ye um oxey xalaatano um parce que kam cooxam exemple le o mécanicien le ten fe refa a tat o ñoowngene to o ba laya duxan a xona xaye mm-hmm. waɗaɗo ɓe omo warno ñatten o ñiito ala ñakitten ndayi to moy toxta faxno ku gaw voilà o kiina jegna sénégal koy re sénégal wene refe sénégal a waana sénégal i fo mbogum ona ñoxore pour démocratie of ko fi an kotamo si kaga ndiig lo mais o andange yit ba jaɓo ɓe kel no ka andeona surtout o ino o ɓala gar bo men o ndakaru waaɗiit waaɗi oɓinnoo par ce que ba of instant kene wasade waga limde alati kam lamude jooɗi acti instant kene à l' instant te mene iraya o we halata e o fe xan xew ka dakar xa ɓiya xe in ndefna maaga na mbigka fexe yi bo chaque instant ne refoona o feet o feet o feet o rasile anin baba yaya foog we mbisate fa mexey na jam ndaa hmm. nanirangoyo mbala anana nanga nan paamo tultum woɓe ɓennaljalke mere boya koyatinono ɗeɗaye afare o ñatinga ten ndino kon waga ñatino ɗenaa vraiment tene leye il faut que jeune xeyi a atig a yiif den a ande vraiment koy mene i toluna dara weesut teno kiif tefe utiliser xelof waaw o utiliser ange xelof waa gëm surtout tey il faut ko utiliser xelo waa ko andee mel ni toll na démocratie te ila yàq mais il faut ko aussi ko am le vrai de démocratie le vrai sens d'acquisition le vrai de tout ce qui est anonaye ka religion fo fo fo fo ton gouvernement donc palaan de teg na way waro an ma waroona naqi fo ma waroona naqi voilà parce que manifestation kene na jega te ndimira jega kam fe ba an oxa fogna no manifestation a gar pour a manifester pour a libérer a pour a manifester pour a démocratie um fo oxa garna pour a manifester pour a mun fo oxa andoona ka gar manifestation ba an ka tamit ka parce que wiin na mbaɗa kam wiin we manifestation ke sans que autant te ref ni a andiroma den noona o kiina wa jego moyen fo ñiso o perte lo famille of renga yaqa famille xa teg ka famille of a baga oy yaam jeg ka tema revenu ten taxu ka jarom moto xaj ke riñif wala kaga nding no fofum émission ne me dayu i wajan rek o tagato fowa salam vision après i mbek a mbi koy kem leya salam vision ten refu ye mais jaajëfalaat na baax mais gidmaa leen mais santaa leen euh, Jalle dina mosaloon euh, parce que naa gëstu waa nga andoona ye vraiment mm-hmm. a mbugalaayo tom ande neta mbi'ka mm-hmm. layitna oyo mm-hmm. o gestuwaaden cooɗaaden layaden e layo i tega nuun wiin we nana nuun parce ka faax chaque o apporter à des messages de sensibilisation à l'endroit des jeunes, à l'endroit de, euh, de ton peuple, qu'à partir. Car le Qatar, au moins, à l'endroit qui nous l'a donc dans le affecté livre, ça, déjà, c'est un défi gagné. Mm. Voilà, même qui m'a donné pas, ou enfin, nous, dans la larme aussi, nous mm. n'avons pas, nous n'avons pas, là, vraiment, on peut le serrer, mm. euh, il est, il m'a dit, euh, voilà. okay? Keenere ɗum émission ke kam sahal indal imena muse kawa in way jaajefalana paax no euh, ite um keta xajna a gara moomene fo a waxtaana fa in njaajefala Samir euh, Samba in way njaajefala fop ngidma fop njoga fop a njal nu nanane ta laytuna nun xa jeune axe andoona yee ka jeg kaa nu xajna a cim nu sooraale rek parce que pied moom in fop in mbogu saax Eh, to a miñ miñ xalagut yaasongogu sik na jam ke eh, xewna koy in fop in way inoorna saaxla daal surtout i ngoorgoorlu rek ngaj ke anna ngajna a cin yaala sarta fe to wut o waagna waagna we andoona yee i tega a caf in to a dossier le suuf a jam yaasam rooga xenan fop a yip fo mbug kam saax